est téléphone bon donc euh, pour tontu ci li ngeen ma laaj ci Kouthia c'est très simple moo di euh, damay faral di citer benn benn benn du proverbe sax waaye benn baat bu am solo bu benn romancier italien bu ñuy wax Umberto Eco def pour joxe xalaatam sur l'avènement des réseaux sociaux nee na les réseaux sociaux ont créé de, de nouveaux contingents de crétins qui ont acquis beaucoup de force et de notoriété au fil du temps nee na ces crétins la avant la création des réseaux sociaux on ne les entendait qu'au bar ou au bistrot mais ils ne pouvaient causer aucun tort à la communauté parce qu'on le faisait taire tout de suite. Ils ne prenaient la parole qu'au bar et au bistrot, mais ils ne pouvaient causer aucun tort à la communauté parce qu'on les faisait taire tout de suite. Mais maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, ces mêmes crétins ont le même droit à la parole que les prix Nobel. kon loolu mooy le revers de la médaille des réseaux sociaux autant c'est extrêmement performant que am naa benn jarbaat boo xam ne Euh, euh, thèse euh, bi mu def thèse de doctorat bi mu def ñun ci suñu temps <laughs> ba ñu nekkee lycée de la Fosse ça c'est Koutia Koutia Koutia mbaa dérangé wu ma la d'abord dama la mettre en main libre dama toog ak ñaari taskatu xabaar ma leen ni journalistes yi amee solidarité de corps politiciens yi am solidarité de corps syndicalistes yi am solidarité de corps waa Jamra dañu am solidarité de corps ndax ku caa membre la ci Jamra ñu ngi nii di ma dégg di la dégg sànq dama leen wan sa photo ma leen ku caa dugg na Jamra te ñun amuñu payam ndax bi Jakarta lëmbalee réew mi ma bindaleet président de la république yëf yi ne këcc rek ñi di ko jaay ci école yi cent franc xale yi di ko naan di mandi yow laa seet si yaa ñu defal benn clip gratuitement dërëm laa jooñu ko nga lancé benn alerte Macky Sall daa di woo Aliou Sarr qui était à l'époque le ministre du commerce jox ko ndigal <clears throat> nee ko Jamra def na ay analyse de laboratoire ndekete euh, Jakarta bi ñuy jaay ci école yi dafa am alcool Aliou Sarr daa di def benn arrêté ministériel date ba du ma ko fàtte mukk en date du 18 septembre 2015 interdire sur l'étendue du territoire national lépp luy Jakarta salañ-salañ ak namp bi mën na leen Kouthia moo liggéey loolu kon Kouthia bu nekkoon ca diggu jaxanama sax ñuy waaj ubbi buntu jaxanama di ko fa dugal sax Jamra dana ñëw laxasu si tànkam ànd ak moom dugg sa jaxanama alors ma ne kon nag euh, amul euh, doomu aadama bu dul am nattu te Sénégal dafa am nu mu bindoo léeg-léeg da ngay wax ak koo wóolu koo wóolu xam nga doo ko nëbb sa dara say xalaat say crainte te ñun ñëpp kenn mu ci si man nii di wax ak yow léeg-léeg ma woo waa imaam Massamba Diop imaam la de di am ku may jëw daane waaw kii de xoolal ma li mu def démb rek ñëpp ñëpp a koy def waaye le problème mooy léeg-léeg da ngay wax ak sa homme de confiance wala une femme de confiance mu enregistré la et c'est lâche alors ma ne leen natt boobu moo dal Kouthia même bu fekkee kàddu yi ki Kouthia yëkkati am ñu mu ci tudd même bu ko Jamra rafetluwul sax parce que ñooñu dañu am njaboot nekk ay mère de famille et cetera même bu ñu ko rafetul sax ki gën a bon taxawaay ci mbir mi mooy ki ko enregistré def na lu lâche te Kouthia maa ngi lay yëgal ne bu la neexee soo amee jot semaine prochaine ñu jël contact dinañ ko poursuivre au plan pénal parce que la loi protège le droit du citoyen d'avoir le droit à la préservation de données personnel loolu la waral ñu créer CDP te soxna Awa Ndiaye jiite ko la la loi protège également koo xam ne da nga wax ak moom mu di la enregistrer cent cent ton autorisation loo tax état bi créé la DSI la division spéciale de la cybercriminalité yow xam naa da nga bëri yërmande rek waaye bu la neexee semaine prochaine ñu poursuivre ko ma woo maître Moussa Sarr parce que daf la enregistré te yëgu ko voilà di la lu nag di masalu tamit ñi nga xam ne tudd nañ leen ci sa euh, wax ak soxna si ñoom it Amina Poté di masalu Viviane ñun ñëpp ñoo bokk réew mi ku nekk ci ñun mato da ngay tarxiis di juum waaye ndaw si loolu mu la def def na lu ñaaw waaw kooku la Sénégal yëpp war a xalab yow nag ku baax nga ku jub nga ku bëgg nit nga te fii ba ba ñuy sàngoo suuf lii nga liggéeyal Jamra ba président Macky Sall ànd seeg yow daal di supprimer Jakarta ci école yi sa liggéey la père de famille yu bari yu seen doom mucc si Jakarta yàlla ak sa taxawaay la moo tax presse baa ngi nii di ma déglu dama leen wanoon sa photo ñuy nuyoonte maag yow ma ne le 13 février Jamra dafa officialiser adhésion Kouthia ci Jamra waaye Kouthia ba mu duggee Jamra c'était le 18 septembre 2015 ba ñu yàlla mayee ndam ci Jakarta Kouthia du noonu sànnil quelque baat gaa ngi lay déglu bisimilah. maa ngi leen di remercier ñëpp. waaw waaw. Euh, ak euh, jigéen moom day pexam rek. dëgg la. waaw yàlla baax la parce que tamit euh, nit ki boo ko takkee jotal ko sunu Muhammad. dëgg la. da ko da ko takk rek xamoon ne moom amour boobu nekkul woon sincère. Mm-hmm. parce que bu sincère woon du jël depuis bi ngeen commencé waxtaan ba nga koy ba ngeen di sëy. dëgg la mu ngi mu ngi sóoraale sóoraale na woon tôt ou parce que dafa am tamit chantage xaalis euh, mhm. bi ci nekkoon tamit. waaw ba découvrir toog nga sëy. waaw détail yooyu yëpp mën nga see bañ a dugg bàyyil ba ñu toog ma ak waaw loolu laa bëgg daal d'une manière générale. voilà. mooy ñun ay éléments Jamra tey tey la la Jamra gën a fonk nag incha allah. parce que dañu bëgg a euh, euh, communication. moo tax boo xoolee suñu ligne éditoriale émission. oui. amul benn clip bu ci jaar boo xam ne dafa am ay vestimentaires yu décent yu ci am. dëgg la. du dul chanson eh, envers le prophète Mohamed. boo mm. tapee boo tapee émission ci ak deux mille douze ba deux mille vingt trois. waaw amul benn clip ci jaar boo xam ne waaye mu fa leen lu dëgg la. balaa ñu commencé les hommes religieux lañu njëkk muy ça prend quinze minutes de l'émission émission bi cinquante deux minutes la. c'est donc euh, euh, je pense que ne ci ligne éditoriale boobu mooy fexe rek ba xale yi. benn ñu xam kilifa diine nekk ci réew mi. Mm-hmm. bu fekkee da ngay balaa ngay commencé tu prends quinze minutes di tudd tous les marabouts du pays dans les recoins et coins du Sénégal. exactement avant ngay egg ci ñu tax ñoom ñu toog bu yàggee dañuy xam ñëpp ba pare nag yow ñu xam ne message yi ngay parce que quand l' actualité est chaude ñu dañ koy sucré. dëgg la ñu ko consommer nga xam ne du benn danger. absolument ñun daal suñu ligne mooy éduquer. Mm-hmm. enseigner et vraiment pour tamit. Euh, hmm. sensibiliser tamit puis wàcce tension Sénégal. dëgg la. seen dana ñu def euh, rayante boobu ñu def ko en scène xam ne. Hmm. après Sénégal dañuy banaliser loolu ba en fin de compte. Euh, dëgg la tension bi day wàccee. dëgg la. loolu mooy suñu engagement ci biir jàngat ci côté média. incha allah donc nañu donc ñun loolu la ñu mën a def liggéey. incha après loolu la quoi mais maa ngi rafetlu moi. dëgg Ah, waaw léegi gis nga Kouthia ah, Kouthia ah, euh, ni ñu koy wax di sax dafa am sama benn jarbaat bu la fan bi coow li jibe mu ne waa tonton waa affaire Kouthia bi li ko ndaw si def ñaaw na de waa yow mbaa mbaa doo ci mucc ndax yow danga nga bëri wax <laughs> yaa ngi ci téléphone yi yaa ngi ci nangam ma ne ko jarbaat na sa xel dal mu ne ma ah lu tax ma ne ko loolu dama ko réglé depuis longtemps mu ne ma ah noo ko réglé enregistrement kii lay enregistré du la tàggu de ma ne ko ah bàyyil ma wax la naka laa ko réglé mu ne ma noo ko réglé ma ne ko gis nga ni bu ma toogee wal fajiri 2S wala beneen télé wala TFM di mbel ne ko na may toogee nekk à l'aise en dehors de ces émissions laa bu ma nit wooyee téléphone su may wax ak moom maa ngi jàpp ne maa ngi toog télé di wax bu ko defee mentalement danaa xam sama wax nu mu koy orienté mu ne ma ah ma ne ko c'est la meilleure parade ma ne ko lu ma wax ak ni téléphone mën naa taxaw ci diggu penc mi répété ko euh, léegi ku caa yow loolu laa lay dénk ndax yow da nga sa xol bi dara new ji yow da nga jàppee ñëpp comme sa bopp danga nga woyof ba pare da nga rafet njort bu mu wëpp léegi dama bëgg nga gànnaayoo lii ma wax suma jarbaat bi kooy waxalati télé wala euh, euh, téléphone jàppal ne yaa ngi toog ci diggu télé ba di wax ak waa Sénégal bu ko defee booy wax yàlla lay orienté ci loo war a biral ci sa kàddu ak loo war a ñàkk biral alors léegi nag euh, j'ai dit partout que suñu partenariat ak yow tey la gën a dëgër benn journaliste ne ma pourquoi ma ne ko pour deux raisons Kouthia moo tax ba Jamra am ndam ba Macky Sall jàppale ñu ci génne la l'arrêté ministériel du 18 septembre 2015 ñu interdire Jakarta bi doon mandiloo xale yi ci école yi ma ne ko deuxième raison bi tax Jamra tey la gën a jàpp Kouthia Kouthia dafa am une ligne éditoriale ci Kouthia Show bu niroog bu Jamra d'abord balaa émission am di commencer day nuyu xalifa diine yëpp loolu rafet la bu Touba ak Tivaouane ak Ndiassane ak Thiénaba ak Niassène ak Medina laa Layène ba ci église bi ñaareel ba mooy le contenu de l'émission doo gis mu Kouthia di futti jigéen wala Kouthia di ñàkk teggin di xotti war ma jigéen wala Kouthia di yëkkati ay kàddoom di def de la pornographie verbale ma ne ko la même ligne éditoriale voilà ma ne lii yàlla nañu gaaw a tourner la page gas ko suul waaw nga reprendre tes activités normales waaye y aucun problème nous sommes à tes côtés ñu ngi lay ñaanal euh, amul jullit bu dul am nattu waaye ndaw soosu def na lu ñaaw ba fi ñaaw yem voilà ndax yow yow xam nga gàttoo xel bu day ni dem en public di wax ay kàddu yu demee noonu kon danga da nga waxtaan ak moom dans le cadre privé waaye moom moo nekkul ku digne de confiance voilà alors kon nag euh, euh, moi je suis confiant parce que je sais que tu as un mental d'acier te doo doo doo doo kii doo doo déprimer doo perdre doo perdre sa sa sa stabilité loolu rek moo tax suma xel dal waaye dama ne woon dama lay woo rek parce que y tellement de journaux yi naan Kouthia Kouthia membre jam la de waaye lii mu def nag lii mu des nag moo tax nag loo tax nag léegi comme que dañu wax ne Euh, li ci làmmiñu borom la daxee moo tax ñu ngi nii toog ma daal di ko bés bés main libre bi gis nga wax wax nga wax ju rafet te Kouthia ba woon démb la ñu gis nga ne la dangay am question bu question yu bari nag laaj leen balaa ngeen ko fiy piégé waat benn question rek a ci waxal. Euh, Kouthia lan ngay répliquer ci sortie bu Amina Poté bi li mu wax yëpp dëgg la da ngeen am jaar-jaar boobu wala dafa nekk loo xamante ni daf ko créer entreprise. Mm-hmm. ñaareelu question bi na neno shetani Siri, Siri, Siri, Siri,